seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Bismillah ba tey jii ji amoon ca stade Demba Diop moom la yéenekaay yi di waxtaanee yéenekaay bi di l'Observateur ne fi mu nekk nii nag ñu ngay wéyal enquête bi ngir ñu xam ku def jéyee ju mel noonu Macky Sall ci biir yéenekaay bi di l'Observateur ne lii kenn du ko bàyyi mu jàll déedéet kenn mëneesu ko sax bàyyi mu jàll ba tax procureur jël na dossier bi démb janoog taskatu xibaar yi yéen kaay bi de enquete ne machine judiciaire bi tàkk na de tàkk na fi mu nekk nii taal nañ ko jëppet nag jëm ci wéyal enquete bi ba xam ku def jëye ju ñu mel procureur mer lool ne enquête Demba Diop bii day dem ba ci njombaxtal la ba jeex tàkk ñu xam kan moo ko def te nag du ñu bàyyi dara loolu de la wax te nag responsabilité yépp dañ ko situé ba taax ci biir yenekaay bi di Vox Populi Serigne Bass fi mu nekk ne maa ngi dànkaafu ku ma ci jàpp ba xam ne yaa def jëye ji naa la tëj ci biir kaso bi yenekaay bi di Vox Populi na Serigne Bass mer na de mer na de am na sax lum xamle nee na am na ay indices yu ñu jot a gis am na ay témoignages am na ay film am na ay enregistrement am na ay information te loolu yëpp dañ ko exploité ba xam ñi def jëye ju ñaaw ji yóbbu leen ci kanamu yoon atte leen tëj leen ci biir kaso bi loolu la wax ci biir yéenekaay bi di Vox Populi témoin na mën da gëwma loolu témoin na man de gëwuma loolu benn yoon seen Bassirou Guèye daal diggewaat na waaye ñu jàpp ak yenekaay bii nga xam ne moo di enquete ne procureur ma ngay seetal deru police ci enquête bii yéenekaay bi di laas moo ñu ko wax nee na police ginnaawam bandang yéenekaay bi di l'observateur ne président bu Ligue Sayar Seck ak directeur bu stade Ousmane Ndiaye déglu nañ leen démb ca sûreté urbaine waa Wakaam ci biir yéenekaay bi di Vox Populi nangu nañ violence bi nangu nañ sanction bi waaye nag ci biir yéenekaay bi l'Observateur seen président ne kenn du leen sacrifié na enquête bi madde kuñ ci war a tuuma ñu tuumaal la ci yéenekaay bi da témoin ne ak Macky Sall dara du ci mujj fàttu leen diggée na de kàddug Macky Sall jërul dóor sa doom lim fi digge woon ne dañ ko sottil fan la mujjee ana taalibe yu lakkoon ca Médina Faras tallu xiddeem accident routier yi bâtiment yi daanu Daaka Medina Gounass naufrage Bettenty liste créé bii dara topp ci li am ba des daal Macky Sall may na un million njaboot ñu am ñu loru ci mbir mii loolu lañ yéenekaay bi di laas wax démb te nag néew yi guddi lañ ko jox seeni njaboot ñu dem ci fiitu bag bi ak yéenekaay bi di enquête na procureur nee na 42 inculpations moo am 16 mandats de dépôt yéen kay bi l'observateur ne BFM 22 personnes la ñu yóbbu ci biir kaso bi jamono yi ñu dem ci législative yi ndax nag bëri na lool violence Vox Populi na maire APR Blaggar moom dañ ko jàmpaaka te benn conseil APR moo ko def jam bi nag métti na lool Idrissa Diop dañ ko jam paaka fi mu nekk nii ba sax métti gi moo tax ñu indi ko fii Dakar ngir faj ko ku def lu ñu mel mi ngi tudd Banfel Dia gendarmerie teg na ko loxo Amadou Ba ci biir yéen kaay bi di Vox Populi na waay waay nañu bàyyi fitna ji ñuy yëngal ci biir campagne bi ndax nag campagne électorale jarte jënd jaasi yat ak barre de fer dem na ci sax bay kokkali na nekkuñ ci tabaski Barthélemy Dia ci biir Vox Populi na violence bi dooragul violence bi dooragul ndax ñii liñ bëgg a def kenn du ko nangu te carte électeur nit ñi ne duñ leen ko jox kenn du ko nangu te loolu nag mooy sooke violence bi rax ci dolli bu ñu seetee ne Macky Sall tëddeewul njaaxaanaay Abdoul mbay moo ko wax ci biir yéenekaay bi di laas na Macky Sall kay sa dëgg-dëgg mooy tëdd liste bu Benno Bokk Yaakaar xaalis nag mu ngi taw bu baax a baax Bamba Fall ci biir yenekaay bi di laas na maire taxawu ndakaaru am na ñoo xam ne xaalis moo leen gënal seen ngor Touba moom mbàkke mbàkke yuy laale la ñuy seet enquête ne aka fa nar a ci biir législative yi ndax camp bu nekk nag samp nga sa mbàkke mbàkke wadd moom ma ngay dawal nicement li nga xam ne moo di campagne am Kébémer démb dañ ko fa teer teeru bu mucc ayib yéen kay moo ñu ko wax ba sax dafa jaaxle xolam tooy lool yëkkatiwul kàddu ndar tamit noonu la Vox Populi dañ ko fa teer teeru bu mucc ayib yéen kay bi Le Quotidien ne am na lu nar a xew ngir toppatoo aéroport AIBD nguur gi dafa jël dogal na day tas SHS ak AHS ñu samp beneen kuréel bu bees te loolu nag coow lu rëy la nar a jur jërë ngeen jëf déglu ne leen dëgg soo jëm seen si Dakar Matin point com